waral bokk na anam bi nga xam ne fa la ñu jaarale dindi malaanu kiiraayam anam boobee jaarul yoon ndax dafa am ay règlement yoo xam ne dañu ko teg assemblée nationale te dafa gis na règlement yooyee dañu ko jalgati loolee moo tax nee na du nee nag bu ñu ko jaarale ci yoon ba dindi malaanu kiiraayam bu ñu ko woola dina wuy ci waaye nag ci nii nga xam ne moom lañ ko violé bu ñu ko woowee day lànk kandaare ne du dem moom Ousmane Sonko daal di wax ne njiitu réew mi di président Macky Sall maanaam moo nekk ci ginnaaw complot bi wax na ko ni ki démb waaye nag Ousmane Sonko nee na Macky Sall bu ko bëggee sànk bu ko bëggee liquider maanaam il faut mu taqal boppam dret loxoy Macky Sall yi dina taq di ripp su dee nag daf maa bëgg a liquider daf maa bëgg a sànk ndax man Ousmane Sonko am na loo xam ne maanaam munu ma koo nangu tey munu ma koo nangu ëllëg dinaa bañ ba dee ba ñu ma ci lan ndax lii ab complot la boo xam ne complot bu ñaaw ñaaw boo xam ne Macky Sall ci boppam moo nekk ci ginnaaw te nag dafa am lenn loo xam ne Macky daf koo war a xam Macky dafa war a xam ne maanaam man duma ma ab ragal du ma tapet du ma koy yox yox yi yéen a kaay gi di laas mu xëy di ñu xibaar ñu lu jëm ci wàllum dindi malaanu kiraayu Ousmane son tey jii la ñu koy amal ci ajjuma ji waaye nag ci anam boo xam ne fast track lay doon yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xibaar naan ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko niki démb lu mu yëkkul attekat bi di Samba Sall daf koo fàtte niki démb lu mu yëkkul attekat bii di Mamadou Seck daf koo fàtte niki démb lu mu yëkkul procureur Serigne Bassirou Gueye daf koo fàtte yéen a kaay gi nee na ñett ñii Ousmane Sonko yàq na leen musiba ak mbelengaan niki démb yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci xalima ak Assane Samb nee na attention Ousmane Sonko soo muy de mener ab yéen a kaay gi de Le Quotidien mu xëy moom tamit di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko niki démb maanaam am na yeneen topp yu yees yoo xam ne mën nañ see topp Ousmane Sonko délit outrage à un magistrat maanaam jéggi war ma ki nga xam ne nag ab àttekat la yéen a kaay gi de Libération Ousmane ne nee na en tout cas li am ba des daal li nga xam ne sama constitution réew moo ma ko may dinaa ko jëfee ndax rek résistance dafa bokk ci li nga xam ne mooy constitution bi Ousmane Sonko j'invoque mon droit naturel et à la résistance yéen a tribune nee na en tout jamono ji bakkan sax xañ na si Ousmane Sonko ne bu ko ci yéen a kaay gii Vox Populi nee na en tout cas li ambade sall Ousmane démb wax na lu leer nee na li ñu bëgg mooy jël ko mandat ko dépôt ba pare nag ubbi li nga xam ne mooy ab instruction su ko defee ñu fàtte ko fi nga xam ne mooy ci kasu bu rëbës yàq ay dossier ma du mën a bokk ci élection présidentielle 2024 Ousmane ne Macky Sall dafa am lenn loo xamante président à vie loolee du ñu ko may Macky Sall waaye nag loolee mooy bëgg-bëggam du samay kaddu kaddu yi Ousmane Sonko la damay nettali yéen a kaay gii di Les Échos mu xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko nee na ay avocat ma bind nañu premier président cour d'appel bu Ndakaaru di ko wax ne ko ñun ànduñu ci àttekat bii di Mamadou Seck ndax Mamadou Seck mi nga xamante ni moom lañ dénk dossier bi maanaam nekkul ab àttekat boo xamante ni bu jub la nekkul boo xam ne bu moom boppam la nekkul àttekat boo xam ne buy tëddee njaaxaanaay la Ousmane ñu ne ko lu tax mu ne Mamadou Seck maanaam fa lañ ko téye te jëf ju ñaaw jëf ju ñaaw ji nga xam ne maanaam moom la Macky Sall yi def ay adversaire politique am yépp ci réew mi Mamadou Seck ak Samba Sall ak ki nga xam ne mooy procureur ñoo koy liggéey waaye nag ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur ne ma Félix Antoine Diome moom te ma ngi ci complot bi ba ci baat kàddu yi Ousmane Sonko la daa di wax ne police ci boppam daf ko doon jéem a espionné Ousmane Sonko ne lii dafa ñaaw sax yéen a kaay gi du ñu xëy fekk fa ay dëmboo ca nee na nag anam bii ni daal maanaam moom lañ bëgg a dindee immunité parlementaire Ousmane Sonko mbir mi jaarul yoon te nag ànd si mooy ànd si ay caaxaan ak i tappale yi nga xam ne maanaam moom la assemblée nationale nekkee ak ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum justice yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu réew mi aji saar mi nga xam ne moo tax réew mi di jax-jaxi ni ki démb nag déglu nañ ko ci tribunalum Dakar lu toll si juróomi waxtu yéen kaay gi di l'observateur nee na aji saar ñëw na ab wax la sol wax bu jaune dox ndànk nag sol ay sandal ñu daal di koy escorter yéen kaay gi di Les nee na aji saar ni ki démb insiste persiste et signe ci kanamu Mamadou Seck mi nga ma ni maanaam moom lañ dénk dossier bi yéen kaay gi nee na Ahmed Sarr mi nga xam ne moo ko jëli woon niki talaata ji ñu dëgmal danañu ko dégloo Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon bi ay bés bi ñu dëgmal moom tim danañu ko déglu maître El Hadj Diouf démb ba ñu ko laajee na ko nag audition bi nan la demee nee na du wax ci wax joojo yéen kaay gi di Vox Populi nee na kuréel gii nga xam ne mooy Y'en a marre ñoom nag nee nañu danañu amal daal am marche place enquête ak le témoin nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb daal dinay waaye nag moom Macky ba mu ñàkkoo ba pare nee na en tout cas askanu Sénégal bu ñu lànkee kandaare bañ a ñàkku ñàkk jël may ko yeneen réew yi nga xam ne ñoo ko soxla Moustapha Diakhaté nag kàddu nga xam ne président Macky Sall na ko di menacer askanu Sénégal waaye Macky tegu ko fenn li nga xam ne nag mooy vaccin yi askanu Sénégal ñoo ko moomaat Macky Sall mu jéem a convaincre askanu Sénégal di leen a xupp naan leen bu ngeen ñàkkuwul ñàkk yi day jël